ñoo ngi leen di nuyu di nuyu réew mi di nuyu bitim réew parce que di leen xamal ne ñu ngi jëm ci bis bu mag muy bisu le 19 juin ñu am ci waa Jambar production bis boo xamante ni bés bu am solo la ci wàllu ndax combat bi c'est le combat de l'année ndax 200 pour cent la Pikine 200 pour cent parcelle wala 1000 pour cent parcelle tey gis ngeen fi Modou Lo gis ngeen fi Garga gis ngeen fi Gora Sock gis ngeen fi Papa Sow mi ngi taxaw kon bis bi ñoo ngi sant yàlla li ñu waroon wax daanaka day woowaat waa partenaire yëpp ak fépp fu supporter nekk le 19 bi incha allah ñu ñëw supporter Franc may ko ndam incha allah ñu si war ko partenaire. bés bi ban bés la fàttali ci wàllu lamb. waaw bis que bis moom macha allah li moo doy noonu dañuy ñu génn ñëw supporter seen mbër incha allah dem arène nationale. ñëw indi ndam bi le 19 incha allah loolu rek ñaan. kon mën na mën na ko xaar ak national bi incha allah Papa Sow ñu ngi jëm ci bés bu mag production tey bés bi bés bu mag la ci wàllu làmb bés bi rek comme li Modou wax li ñu waxaat rek li ñu wax comme doomu parcelle yëpp bu leen ragal dara affaire bi xoolal raak tag la ñëpp bu dem ñu jël sunu sunu li ñu moom. arène nationale le 19 parcelle bu kenn des na ñëpp ñooy dem jël lu moom allah raak tag amul yoole. waaw sax fu ngeen fa taxaw dina leen jël solo. raak tag laa la wax. adversaire Sokh. Sokh ki mooy adversaire Sokh. frère gis nga barki démb Sokh gis nga 200 pour cent bi est ce que xam nga ni 200 pour cent bi yaa leen génne 200 pour cent bi. nga ko teg ma bàyyi la ko nuyoo d' abord. avant tout dañuy sant yàlla bu baax a baax. avant tout dañuy sant yàlla bu baax a baax. di nuyu suñu dëkkandoo yi. waaw suñu dëkkandoo yi. parce que waaw suñu dëkkandoo yi dinañ jégalu bu baax parce que ku woote ñu wuyu si la rek loolu dafa nekk ci xol aussi tamit dañoo xaw a tardé ak guddi di leen jégalu bu baax a baax aussi tamit grand hommage à Moussa Diouf di ko ñaanal yàlla yàlla yërëm ko ak ak Basir Cissé ak Atam ñoo ñëpp ay doomu Unité 7 lañu rawatina képp ku génn àdduna yàlla na suñu borom yërëm te jéggal la te xaar la àjjana yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def mais mu déstabiliser parce que man lii actuellement li ma gis nii li ma nekkal li famille parce que ñooy nekk matin soir midi amul benn bis boo xam ne dañuy toog te duñ déggante Modou suñu grand la Papa suñu grand la même chose ñu ne ñoom góor ak ñoom Diouf doon Garga dër yeneen gars yi bu ñu limee dañuy actuellement famille la li nekkatul ay san pour cent li famille la lu ko tëgg tasu ko ñoom lu ñu ni 200 pour cent dimanche ñetti ponko lépp xaj na ci. leer naa la. ñoom ñett ñëpp naa la indil ngeen. mais mais mais mais moom dootoo laa ñetti mbër. na la fa fekk nee na boo xeexee mu dund le prix mu tànn. parce que léegi suñuy ngi koy xaar ba bés ba incha allah. loolu rek nga a tontu. lan moo tax nga ne ñoom ñeenti ponkal yëpp na ah. di daw gauche ñu di daw droite moo tax ma ne ñun ñëpp xaj nañ ci. Pikine yëngu na jàkkaar boobu laa bëgg parce que ki xamante ne mooy Sokh ne nii ñaar da war a bëri ba dem ardo taj taj bi day war a bëri loo koy wax. non ma xam moom sama supporter bëgguñu ñu yokk ma. ah bon waaw. ayca mbar mbar ñu gis ngay bàkku di wàññi sa ñetti baaro lu waral loolu. ah ñetti barigo yi la yi ci ginnaaw. yi ci ginnaaw. yaa ngi ci li nga nekkoon 30 secondes nga may ba léegi. tey laa ci gën a tey laa ci la wax. fraction de seconde. et ñu bañ a ñu bañ a naka. kanakan mooy ñetti bërigo yi ñetti bërigo yi kanakan la. ñetti bërigo yi kanakan la. xam nga ko. Eumeu Sène Boy di wax. Ama Baldé dañu bàyyi wuy ma xanaa wuy ma dafa guddi. comprendre ñu xaw a joxe cër ñu a gàttal wax na ba pare. ñu ñaanal ñëpp ñu fi teew képp ku ci ñibbi nga ñibbi ci jàmm. encore une waat waa parcelle 1 sama mbokku njaago yi maa ngi leen di woo bu baax a baax. communication may ñu benn question bi rek may ma may ma may ma question bi benn question bi toujours sénégalais yi dañ koy laaj benn question bi bi nga buñ la joxee soog ba léegi mooy ci sa communication saa su ne da ngay mel ni kuy bëri bëri da ngay mel ni kuy bëri ko amul benn expérience da nga ko naaloowul da nga wala lan moo xew est-ce que loolu mën na la ju xam nga ku ne am na muy ran comprendre nga mais man famille nekkal ni rek fii am na lépp lépp a ngi fii yaa tout nga comme amul leen lu ñuy ne fii di tiit wala lu ñuy ragal fii lépp fi yaa tout fii mooy parcelle paya yaa ngi dégg ñu baal rek waaw di nuyu encore une fois ñi nga xam ne ku ci ni ñu koy nuyu bu baax ak écurie Jàmbaar ñu ngi nuyu aussi tamit suñu père Ndiougo père Ndiougo Dia mu ngi fii am gën lato su kosu lato ak su Balla Diouf ñoom ñëpp ñu ngi nuyu parcelle mu wëru parcelle yëpp ak bisante aussi tamit ñu ngi koy nuyu njaago bi ah waaw aussi tamit di dem ba Belgique di émission benn grand muy ngi nuyu ñëpp ñi xam ne ñu ngi jàpp jàpp nañ ci combat bi daal maa ngi leen nuyu bu baax di leen gërëm di waaw di wax nag l'international Youssou Ndoye gisaguñ la doomu day Dodo Sarr ak Mawlu. gisaguñ la waa waa Temax convois yi dimanche dañuy teel a yore stade bi dama bëgg ñun ñëpp ñu a takku yaa ngi ko xam. ñu nuyu tamit waa waa dooleel waa dooleel franc maa ngi leen di bu baax di leen. intercet bu ma dëkk maa leen